projet bu weesu loolu projet souveraineté la avant tout c'est un projet souverainiste doog a nekk un projet panafricain ñu assuré ko kon jëmm yi amul solo de bu ci kenn jàpp ni à commencer par man mi toll nga ci foo xam ni bu dul yow rek neen la foo xalaatee noonu rek bokkoo ci projet bi donc buñ ci tollee ba ma ne nii laa ko xalaatee ba joxe samay orientation képp ku bokk ci Pastef képp kuy allié képp koo xam ne gis nga sa bopp ci projet bi nangul ni noonu la nga takk sa ndigg ñu jublu ci liggéey bi ndax bu ñu booloo mankoo rek ñi xajuñ si ñooma ah. bosu élection bi bu ñu booloo manko ak candidat bu munti doon man ngemb ko man parti bi ak allié yépp ànd ci bosu élection bi du ma ne dix-huit heures waaye élection bi jeex bu soobee yàlla loolu nag dafa laaj kenn ku ne fàtte sa bopp ndam rek ndax bu ñu demee ba yàlla teg réew mi suñu loxo ba sénégalais yi ba dénkuñu képp koo xam ne liggéey rek moo la tax a jóg nga ci sa palaas ndax état ku xam ni mu toll ak li ci nekk ci responsabilité président premier ministre ministre d'État ministre délégué ministre simple ministre délégué directeur directeur généraux chef d'agence ambassadeur xaw ma lan ak lan ak lan képp koo xam ne am nga compétence te liggéey rek tax la jóg bu ñu yàlla dénkoon réew bi te nga bokkoon ci projet bi di ci liggéey daañu la dénk ne la demal liggéey xool la nag boo liggéeyee te jaaral ko ci yoon ñu ne la jaajëf jox la promotion waaye képp koo xam ne safaan bee ko taxoon a jóg foog ni la woon mën naa mën naa continuer dama fiy nekkal sama poche dama fiy nekkal ay mbirum caaxaan wala awma compétence bu boobaa it imma duñ na jox wala buñ na joxe ba pare doog a gis loolu ci yow ñu nangu ko rek mu jeex takk bu buñ yàlla joxe xool xëccoo du am ndax nit dinañ la teg ngay liggéey liggéey ba yaay sonn ne mënatuma dama bu ngeen jël ma dem noppalu ci tuuti. ndax liggéeyal sa askan liggéeyal yàlla la warul ànd bëgg-bëgg yu bari ci sa sa mbiru bopp sa poos ak sa yu demee noonu kon buñ ci tàllee ba ñu def décision ne lii la damay ñaan ñëpp mooy na ci ñëpp ànd jàpp waaye buñ ci tollee ba war a jël ba jël décision boobu damay tàllal sama loxo sénégalais yépp nag sama mbokku acteur politique yi nga xam ne dañoo bokk opposition bi di leen tàllal loxo war nañoo dajale suñu doole ba nga xam ne li yi doon wax vote utile vote utile élection bi dafa war a gaaw te leer nañ waroon sax laam-laame ndax est-ce que gagné nañu premier tour am déet ndax bu ñu ne woon cinquante et pour cent lañu am sax ñoom ñu la bañ gi ne demeewul noonu élection bi premier tour la war a jeexee à soixante quinze pour cent wala yu mel noonu nga xam ne kenn mënu ko werante te loolu dafa laaj Sénégal yëpp daje xaw ma ñaata candidat yi am de mën na am ñett lay doon mën na am juróom lay doon comment en deux mille dix neuf mën na am mu nekk dix wala quinze wala vingt wala trente yàlla xam waaye candidat yi nu ñu bari bari bari lamay ñaan bokk opposition bi yëpp mooy ñu def dajalam def vote utile su ma nee opposition bi nag mooy képp koo xam ne teg nga ni fi ñu toll noon buñ ci tolloo képp koo xam ne conseil nga considéré nga sa bopp comme opposant ci képp koo xam ne jàpp nga ni opposant nga tàllal nañ la ñu dajale suñu doole jëlee fi lii tax lii musiba la ci Sénégal xaw ma ci xàjj ak seen Pastef nag dafa di parti boo xam dañu am culture partage ak culture ànd ak nit ñi. ànd nañu sax ba ànd ak ñoo xam ne ñëpp xalaatoon jàppoon nañu Pastef du ànd ak ñi bu ko defee gars yi gaawantu naan way moo fi newoon système bi moo fi ne newoon lii ànd nañu ba ànd ak ñoo xam ne ba ñuy ànd ak ñoom ñëpp ak ñuy naan yéen a ngi leen di yéen a ngi leen boot di ngeen leen boot ba jox leen waaye la ñuy jëkk a mat waaye ñu jàpp ni jamono jooju réew mi loolu la soxla woon réew mi dafa soxla woon ñu dajale tax toujours notre logique. kon buñ ci tolli lañuy ñaan nit ñi ndax dinaa ko wax ak beaucoup d'humilité nag mais la yàlla def loolu réew mi bu dee ñun ñi bokk opposition yàlla jox na Pastef doole goo xam ne du lu ñuy werante wala ñuy laam-laame loolu nag yàlla koy def du suñu mérite buñ ci amee mérite dix pour cent la quatre-vingt-dix pour cent yàlla la ndax ñeneen ñi politique yépp ëpp ñu leen ëpp ñu leen alal du dañ leen gën judd du dañ leen ëpp jàng gënuñu leen sonn ci politique yàlla mooy tudd lu ko neex bu loolu amee nag ñu dem ba toll ci réew mi foo xam ne ñun ñëpp jàpp jàpp nañ ni mënatuñu continuer nii te fu virage bi buñ ko ratee defe naa dina métti trop cinquante ans yi di ñëw ndax enjeu yi wër Sénégal ma bu ñu tolle ci loolu nag ñëpp dañu war def preuve de patriotisme. moo tax ñuy woo ñëpp ñëpp am na ñoo xam ne ñu nga doon ànd ak Macky barki démb ci wàllu politique ñu nekkoon adversaire léeg-léeg mu tàngaan jër waaye bu ñu génnee ci Macky ndax man dama ne benn adversaire la am ci politique mooy président maki Sall ak nguuram xam nga beneen adversaire keneen ku may boole dafa fekk nga ànd président Macky Sall ak nguuram waaye ku fa jógee tey tey tey ñëw taxaw samp sa dënn damay opposé mën naa ànd ak yow ñu ànd xeex. ndax islam bi ñu ñu ñu bokk ñun nit ànd naag yëfuru Màkka yi xeex yonent bi alayhi salaam rey ay nit yu bari ci ay saabaam ba mu soob ko mu tuub te keroog bi mu tuubee li mu ci islam ki ñëpp xam nañ ko ñoom Walid defe naa moom lañ doon wax sayfullah islam Omar Omar bi mu tuubee la ne man duma bokk ci diine boo xam ne nit ñi dañuy làkkatu ci ay suusol di julli génne leen ngeen juli boobu julli ci kenn ñëmbuloon génn juli ci màgg yonent bi doon ñaan naan yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma kenn ci ñaari omar yi ndax jàmbaar la ñu woon waaye boobu ñoom tuubuñu ñu ngi ànd ak yéefar yi sonaloon jullit ñi lool léeg sax ñu ñëw euh, torturer leen ci ñi seen jaam yi ñu amoon te ñu tuuboon di leen torturer di leen def lu ne mënoon na ne ñii si système ba lañu bokk mais dafa ñaan yàlla yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma kenn ci ñaari Omar yi ba keroog Omar bu ñuy tuub xëy demoon bëgg a faagaagal ay mbokkam yu ñu leen ne tuub nañ mu dem fekkaleen fa dégg leen ñuy jàng alxuraan su ma juumul soratu taaxaalawul dañuy bu muy déglu ba ba fi ñuy egg faalam annahu laa ilaaha illallah mu dégg naa dafa xam daanu noonu nga jaare tuub ne tey nag bis ni ki tey tuub na kenn ku bokk ci diine gi ma bokk dootul nëbbatu di julli génne leen julli fu leen neex ba ma gis kan moo leen laal ci màkk ji kon loolu am na solo kon bu bu dara am rek ñëpp naan ñu woy moo ne woon système bi système bi man mi ko théoriser maa gën a xam lan laa jublu ci système bi ñaareel système bi c'est des règles c'est pas les hommes système bi c'est des règles c'est pas les nit nu mu baax baax baax baax nga yóbbu ko ci système bu bon te mu nangu système ba day ànd ak système bu baax waaye nit nu mu bon bon bon bon bis bu d'accord ni système bi mu nekkoon baaxul mu ñëw fekk système bu ko gën day baax te léegi nag léeg nag nit ni mu meloon ci ba may nekk ci système bu bon su doon malgré juboon na foofu bu ñëwee ci système bu baax mooy gën ci ñu fa nekk xayrukum fil islam xayrukum fil jaahiliya defe naa loolu la xadis bu